jotaay bi itam miin na ko lool muy boroom xam-xam boo xam ne mu ngi jariñe ci xam-xamam képp koo xam ne ab jullit nga rawatina képp koo xam ne ab murit nga ñu miin ko lool ci yoon wi ak ci dëkk bi yëpp itam nag muy Serigne Mbacke Abdou Rahman muy koo xam ne xam-xamam mate na ko leneen li ñuy séntu ci doomi soxna yëpp mu daje ci moom doy na sëkk rek ñu ne cheikh Mouhamadunil Muntaqa naalam yu rek yi nga xam ne naalal na ko sëñ Touba ci dëkkam bu sell bi bokk na ci ña nga xam ne moom sëñ Mbàkke Abdourahmane mi sëriñ bi am na ci yaakaar ne bokk na ci ñi ko mën a dimbale ci yéeneem jooju ak naalam jooju nga xam ne am na ko ci dëkk bi muy liggéeyam bu rëy bii ci université bi nga xam ne moo nekk fii ci Touba mboole ko ci ñi nga xam ne kilifa yi lañ di toppatoo lépp lu jëm ca wàllu woowee kon lañ doon séntu ci moom ba tànn mawdon bi mel na ni mate na ko sëkk li ñuy def rek kon mooy dañuy bañ a guddal ndax njëkkalanteeg waxtu yi bàyyi sëriñ Mbacke abdourahman mu ñëwal ni ci tomb bi di ko ñaanal sun borom subhanahu wa taala leeral ab dënnam fecc aw làmmiñam te defal ñu dégg ak topp ci barkeb sëriñ bi kon sëriñ Mbacke bismillah taqabal mashkura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي yi maa ngi زيارة di بقل ci weer wu tedd bi ak ci bis bu tedd bi di sargal bu baax mbokki daairatu muqaddamatul xidma ci njiitu al imam afiya ci taxawaay yu am solo yi ci bërëb bi rawatina ci biir weeru ramadan wu tedd wi sëriñ Moussa ñu ngi lay nuyu baax di nuyu mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi teewlu ànd ak ñun bi ginnaaw bu ñu ziyaaree Mawlana Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaan suñu borom gën koo taxawal gën koo dëgëral gën koo dooleel tomb bi nga wax ni moom la mbokk yi bëgg ñu waxtaan ci tey mooy alwasiya muy mbir mu ama am solo waaye mel na ñu bari ci nun nag duñ ko bàyyi xel ñaare ndax daa am lu mu lool lo xamni nit ñi dafa melni ñame wuñ ko ndax wax wasiya rek wax faatu dama adama yi ñu bari ci ñoom yalla da leena a binde wala da leena na nattoo ragal faatu lepp lo xamne day aju sa faatu sa ginnaw do na nga wax lu ci jëm waye ci deug dëgg wasiya jullit bu ne waron nako ko xel ngey yu bare bare yo xamne da lañ ko tuddu inshallah Euh, moo tax ñu bëgg ko waxtaane waxtaanaale it at tey ci aju kon danañ jéem a xamle lan mooy wasiya wax it ci yan gës lay la dellu ci diine ak njariñ njariñ lan moo ne ci dafa ab wasiya waxtaane it ay ponkam ak i chartam ak xeeti xeet yim am xeeti wasiya yi am ak nak li yàq wasi inshallah taala waxtaan wi ci tombu yoyu lay teunkon ab bind la buñu jangale ci al fiqh al islami muy bind bo xam dafa aju ci lo xam ñepp la wara soxal ñepp la wara soxal kep ko xam ya ngi dundu di jaxasoog nit ni war na soxal wasiya nag bi ci arab fim joge jokk lay firi jokk ñu wax ne li tax ñu tuddee loolu wasiya mooy nit ki dafa mel ne ku jokk ginnaaw ak dundam maanaam ginnaaw bu mu faatoo daa wéy di jokk ak ak soppax ni ko walla daal jokk mbiram ci ginnaaw bu mu faatoo nga xam daal ginnaaw day faatu ba noppi am sañ-sañ ci alal alalam wala boog am ay taxawaay yoo xam ne dañ ko tey bàyyi xel waxam nañu loolu moo tax ñu tudde ko wasiya ci wasa ji mu jógee moo wasa la ñoo bokk lu ñu teg kon jokk la waaye ci charia nag buñ ko waxee pas-pas la boo xam ne bu ko nit ki defee day may euh, ndax bu ñuy wax wasiya ci ñaari mbir lay jëm benn bi alali nit ki alalam ji moom bu faatoo am na ci loo xam ne ginnaaw bu mu faatoo it alalam lépp lu santaane ne nañ ko ci def dañ ko ko caa war a defal bu dëppook charte yi ak nag yoo xam ne ay sañ-sañama woon sañ naa wax ne boo fi jógee diw laa ko batale bu dee lu jëm ci alal day doon pas-pas boo xam ne nit ki day faatu ba noppi buñ xaajee alal ji ñetti xaaj mbaa lu ko yées mu mën a wéy di soppaxndiku ci alal jooju lu mu bëgg ñu defal ko ci walla koo xam ne day faatu ba noppi bàyyi fi naayib koo xam ne moo koy wuutu ci loo xam ne ba mu fiy nekk moom moo ko doon def nit dana dénkaane ne sama njaboot bu ma faatoo diw laa leen dénk dama leen taxawul gone yu jigéen ñi ku ci mat a dem kër na ko maye gone yu góor yi ku ci mata am borom kër na ko wutal borom ku ci mata am soxna na ko wutal soxna yooyu yëpp ci xeetu wasa yi la bokk euh, kon lu am am solo loo xam ne jullit yi waroon nañ ko bàyyi xel lool ndax nit ki mën naa dénkaane ki toppatoo alalam mën naa batale it koo xam ne lu jëm ci ak njabootam walla ak yu fi bàyyi woon bëgg ñu ko taxaw ba ci sax bu faatoo ñi koy sangat ñi koy jullee fañ koy denc yépp nit mën naa bind ba ne nañ ko defal ci nii waaye na ko diw def loolu jullit bokk na ci lim sañ fi mu tegu nag mooy ndigal la loo xam ne yàlla sunu borom subhanahu wa taala moo yoonal ñuy def wasiya bu njëkkoon sax nag farata la woon donte sax am na ba tey ci waroom xam-xam ñu ko jàpp farata di ko tudde al wasiya al wajiba borom wax ne kutiba alaykum ida xadara ahadakum mawt in taraka xayran al wasiyatu lil walidayni wal aqrabina bil maarufi xaqan ala al muttaqin ne farataal nañ ci yéen la boog digal nañu leen bu faatu dikkee ku ci bàyyi xayran xayran jooju nag boroom xam-xam ne ñu ku bàyyi alal ju bari la ku bàyyi alal ju bari na ca def wasiya ñeel ay woy juróom ak ay jegeñaaleem ci yiw waaye loolu nag àq la ci képp ku ragal yàlla war ko bàyyi xel waxin woowu boroom xam-xam am na ci ñuy sukkandiku ne moo waneen du farata ñaareel ba lil waalidayni ginnaaw bi bi aayaatul mawaaris wàccee wax ñi donn ak kenn ku la ngay donn ci lañ wax ne ci lañ nasaxal aaya ji nekkatul farata waaye nekk mandu kon nekk lu ñu sopp kon dañ koo sopp ñëw na ay yoon ci alxuraan it ci yeneen barab ida xadara alqismata ulul qurbe wal yataame wal masaakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan maarufa su ngeen di miraas ay mbokki jege ñaale teewe ko te bokkuñ ci ñu war a doon na ngeen leen sedd yu bari bi wax nañ seddale alal ji waaye day wax ni min ba'di wasiyatin yuusi biha aw dayn ginnaaw bu fayee borom waaye joxe ay ndënkaanam yi nga xam ne mu la dénkaane am solo ku am solo tax na suñu borom di wax sax ne ca mujj jamono yàlla bokk na ci li mu bugale nit jekki-jekki deegu mbetteel ñëw ngu nit ñi ba duñ tala kenn tala dénkaane kenn tala dénkaane fala yastatiuna tawsiyatan du tala dellu këram foo ko fekk fa lay faatu ñu dégg ci ne kon daf wasiya lu ñu santaane la waaye léeg-léeg yàlla àgg fu mu tool jaam ba duñ ko mën a def kon lu ñu soxla la ci ab jullit bu di ko def yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam bokk na ci lim doon wax nee na lan mooy ak nit koo xam ne ab jullit la am lu mën a dénkaane fanaan ñaari guddi te dénkaanewut a day yéemu di wax ne loolu daal ban sañ-sañ la ci nit daal koo xam ne am na lu mu war a dénkaane lu mën a dénkaane wóor te fanaan ñaari guddi te bindut dénkaanam mu leer nañ bàyyi ndax ci biir ñaari guddi yooyu la mën a jeexal wata doomu aadama ñu bari ci nit ñi nag buñ demee ba wóolootuñ seen bopp ci dund foofa lañuy ñuy bind dénkaat baax na de waaye la gën nag mooy bind ko ba ko dara ba ko dara jotagut ba ko dara jotagut lay bind wasiya bind ca ci bëgg a bind lépp ndax dàqut dabaatal bu la neexee nga dem ba mu yàgg la nga bindoon nga yokk ca wala nga wàññi ca wala waaye daal waxtu wu nga xam ne bu faatu bette woon it yow batale nga sa ginnaaw loolu la ñu sant ab jullit la euh, Saad ibn Abi Waqaas radiyallahu anhu ci saxaaba yi la woon nee na bi mu wéradee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw di ko seet bokkoon na ci aadaam moom islam ci maaxam saxaaba yi ku ñëw seet si la Saad nee na ma wérade mu ñëw seet si ma ca loola xajjatu wadaa wa daala na métti bu métti wu ma daloon woo xam ne jéggi woon a dayoo ma ne ko man day yonent bi sallallahu alayhi wasallam metti bi ma dal day gis nga ko naa dal wóolutul ne dana dana ci génn na ko te man kat ku bari alal laa te benn doom bu jigéen laa am bu may doon ndax man na ma saraxe sama ñaari sulusu alal bind ne su ma faatoo buñ ko xaaje ñetti xaaj nañ saraxe ñaari yonent bi ne ko déedéet Muneko ndax kon man na maa saraxe xaj bi muneko ne muneko kon sulus bi yonent bi neko sulus bi te sulus sax lu bari la fofu la borom xam jot ba nek kuy wasiya mënta weesu sulusu alala dañuy wax sax ñom neena na baña mat sulus mo gën ndax neena fa sulusu kathir kon baña mat sulus way dal niki dal bu fa te ba buñ xaajoon alalam ñetti xaaj benn xaaj bi moo ko moom lu mu ca santaane nañ ko ko def ci sàttu yu dëppoog yoon danañ ko ci defal euh, saadu ne na yonent da ko ne li tax ma wax la booy saraxee na doon sulus waaye bu mu ko ëpp nga bàyyi sa njaboot ñu am doon ñu woomal doylu moo gën nga bàyyi leen ñu nekk ay foqara sa bot nga baye len alal ni meuna kita dund ci tedd nga mo gën nga baye la ñu nekk ñak kon ni nga bëgg bëgg tuyaaba saraxa sa alal bayi sa bot ñu tumuraanke l'islam santane wu ko no moo mu ne kon nang len baye li ëpp te saraxa ci aslaf na moo tax borom xam ci fofu dañuy wax ne fiñ bëgg mu daf wasiya ci alalam wasiya bi nga xam da jëm ci dimbulé ci sa alal moy ko xamne bayina alal ju bari in taraka khayran waye ko xamne sa alal jut doy doyut la doyut sa njaboot koko day mel ne taamuñ ci mom muy def woosa yeb sama sulu su alal nañ ko jox diw diw ño xamne ne bokkut ci ak am ñu doon ndax day mel su wal lor njaboot ga man lor waaw l'islam nak njariñ yi nek ci ginnaw daf wasiya wasiya budé ci sa alal boobu leer na nit ki am alal ju bari nga xam ne bu ca jëlee as lëf dénkaane ñu defal kooku ci yoonu yàlla wala ñu dimbalee ko ay mbokkam yoo xam ne waruñ ko woon a donn waaye dana des lu bari loo xam ne nag am njabootam dana jamono tedd kooku lañ ko sant amma wasiye bi nga xam ne nag daa jëm ci yow li la war sa ginnaaw kooku war teef la ci ñëpp maanaam doomu aadama bu dee jëflanteeg nit ñi di duggalanteeg nit ñi balaa faatu war naa bind wasiya ndax lan daf ca àq yi nga xam ne moo ko amee ameel nit ñi képp ku ameel bor mu bind ko wax ne ameel na diw nàngam képp ku ko dénk dara mu bind dénkaan la wax fam ne ne diw sàngam moo ma dénkoon lii képp ku mbokkal dara na ne alal sàngam mag diw ñoo ko bokkut nàngam laa ci am moom ci nàngam waaye naka noonu it képp koo xam ne koko da amel ameel mu wax ko diw sangam amel ma nangam ndax àq la bu leeru ak njabootam man nañ caa bañ a jot te mën nañoo lool ndax ñak bayyi xel wasu yi mbokk yi bokk na ci limi lor ci bir xel yi bari na tay am mirage mu lëj kenn mënu ko lijeenti ñak bind wasu yi la nit ñew ne faatu na ma bor mbokk yi ne ko ana seere ya ñu naan diw fekkoon nag fekkiwu ko woon waxoon na ma ko leerutoon ñu lañ la dara leerut ñu nekkoon kon mënuñ koo fay te mën naa am wax na dëgg te àq joo xam ne bu buñ ko fay itam bu yomal xeamee danañ ko fay loolu war a leer bu fekkoon nag bind na ne ba ameel naa diw wutal koy seere jafe-jafe du taam wala nit faatu am ku ñëw ne lii bokku ci alalam maa ko moom waxtu wu ne ci miraas ay gis ñu ne ñu genn bagage bari bam am ñu genn am ko ne mako ba bu fekkoon te ne wasu bu leer lu lam momu lepp mu wax ne momu ko su baba kenn du yo yu mel wax dara dana waral leg leg ñu miraas lo xane momu ko dana waral lu bokkon ci alalam ñor ko waye da am ñuko ko amel te leer lu ko ko koy rëgërul yàlla ñu wax ko ñu te ken ali ko mu jeex waaye nag fii ci àdduna lay jeex de waaye du jeex ci suñu borom boo liggéey moo tax mu am solo lool leeral àq yi nga xam ne moo dox sa digganteeg nit ñi ak sax léeg-léeg nit koo xam ne digg ma boromam la daa war a génne asaka te génnewu ko amoon na alal joo xam asaka war na ci jotu ko génne na bind ne bàyyi na alal sàngam asaka waroon na ca génn nangam na toll nañ ko génn wala ay kafaara yu ko waroon ñu waroon a lele te jotu koo def na bind ne amee naa kafaara nangam nañ ma ko defal su boobaa yooyu yëpp ak yooyu teer leer lijjanti ko moo gën a dal xel loolu bokk na ci njariñ li ci nekk bokk na ci ay njariñ it dana may nit ki mu dabaatal lu bari aw aw yiw ndax léeg-léeg nit di dund bëgg alal dab ko yu bari ci baax du ko def waaye mu dem ba mujj dundam rek yàlla xeer ko ci lu baax yu bari yoo xam ne mënoon na ko ci njëlbeen mënatu ko mu wax ne sama alal ji kat nañ ci jël nangam defal ma ko ci jàkka ji dafal ma ci daara ji dafal mook ko ci fajukaay bi tudd ay barab yoo xam ne mboolooy jullit ñoo fee daje di ci jariñ mu nekk aw yiwu fi des loolu bokk na ci ay njariñam fexe bu bàyyi fi aw yiw sa ginnaaw woo xam ne ay nit ak i mbooloo dañ ci jariñu biti it bi ci desit manis na koo jëfandikoo ngir jokk mbokk am na koo xam ne dafa séqoon ak ay mbokkam jàmm faatu bàyyi alal di bari waaye amna ci mbokam yo xamne taranga taraanga sekk nañu waye nak yalla dogulut ñom ñu bokku ci ñakoy doon mom man na bind ne diw ak diw ak diw nañ leen jox ci alal janan lolu yaangi jox jokk mbokk yaa koy degeural ñan mbokk ñamo ga ko gis na ki keur yaangi santara ñu dénk ko alal bu ñu xelloo danañ xam ne bëgg nañu ku leen jox ñu mëna a wéy di jokk mbokk loolu aw yiw la wo xam man nañ ko jariñoo ci euh, bind wasiya ak nag léeg-léeg yu baax am ñi tabaxi jàkk tabaxi jumaa tabaxi daara léeg lekk sëriñ bi joxe ndigal yiw liggéey bu rëy bu am solo nga bind ne sama surus alal nañ ci jël nangam dafal ma ko ci liggéey boobu nekk aw yiw woo xam ne mashruaat yi lislaam am yow mën ngaa faat bu nag bokk ñee ñee ci bokk di ci joxe seen cër bu ci desit da lay may nga mëna dimbalé fuqara yi mën dimbale miskini nit faatu ba nopi ña nga dëkkal ñepp bi ci yow yegg ne kat ndeké bi ngay waja faatu denka na nga ni sama no yépp nañ jël ci sama alal ko leen la jox nang ñun ñepp luñ doon ñaan lañ ko yokk té lool aw yiwu la ñeel aji faatu motax wasiya bokk na ci ay jëriñam lool ak it dalay may nga mëna matal limako waxé légui ak yi nga amé ak yi nga amé doom aadama bu dee jëfandikoo nit ñi rek àq ba mën na ko bàyyi mën na ko toj te àq du rees àq du rees boo ko fayul tey bi nga xam ne na nga ko fay kon nga bàyyi wasiyee ni lépp lu ma ameel diw ak diw bind ñépp lu ñu war a bàyyi xel loolu nag mbokk yi jamono yu ñu toll yitteel la nit ñi dañuy jëflante ci yu lënt léeg-léeg duñ leeral te fekk ay leblante la yooyu dañ ko di bind ku faatu ñu lijjanti ko ndax ay àq la naa ko faral di misaal ci lu mel ne ndawtal yi xew léegi mbokk yi di ko def rawatina suñu mbokk jigéen ñi bu njëkk ndawtal ak dimbalante la woon ngir yàlla ku amul xew kenn ku ne ñëw jox la lam man bu njëkk sax daw doon xaalis ay sànqal ay yooyu jamono doo xam ak si xaalis nag nit ñi jox xaalis am na ñoo xam ne dañ koy joxe ngir yàlla waaye am na ñoo xam ne ñu leb la dañu leblante moo tax yooyu dañ ko war di bind mu leer ku ci faatu ñu génne fa groupe bi xool ñi nga ameel ñëpp bala ñu def dara ñu fayu leen seen i yow itam nga bind lu leer ne diw ak diw amel na ko diw diw amel na ko loolu lu war bu dul nit day faatu yobale ak jamm buñ ko taxawé kanam suñu borom bala kenn jall da nga delloo ak di jindi ko fi mu leer nak daggal motax yu mel non dañ ko di bind mu leer boy maye ngay dama la ko may mu leer ñu xam nañ ko may jox la loo xam ne da bëgg mu fay la ko wala bu la ko fay moom lebelaat la ndax am na nu ñu koy defee noo xam ne li ci doy waar mooy waxtu wu ne dana am ko ameel moroom bor nga xam ne saa yu faatu dikk moom faaw am ca ko ameel moroom di bor loolu nag lu mata mata li jënti la ci yu mel nii bokk na ci ay njariñam it day may nit mu mën a faatu ba noppi di def lu baax ndax léeg-léeg nit bari alal jël ci ab lim ne nañ ko defal ci yoonu yàlla mu faatu loola di sakkan saa su ne aw yiw di ko fekk fa mu tëdd te loolu bokk na ci yéen islam noonu bu jaam bu faatoo jëfe yëpp dog ba mu des ñett bokkoon na ci sadaqa jaariya ci wasiya man nañ cee fàggu sadaqa jaariya boo xam dafay des ba faaw saa yoo faatoo lu mu yàgg yàgg nit ñi di ci jariñ mu nekk aw yiw am na tey ñu bàyyi woon ay yiw ban noonu ab teen wala defar ab forage wala xëj ci ndox ci barab wala defar leen jàkka wala yu mel noonu wala tabaxal leen daara ba nag bàyyi fa nag lu koy doxal képp ku ca jariñu aw yu lay doon ñeel ko moom mi fa ba keroog feeg jëmm jaa ngi fay nekk kon bokk na ci yërmande yàlla yi nga xam ne yàlla yoonal na ko ngir nit ñi man cee bari seen yiw nit xam nga faatu ba noppi nag dese yiw bari ci àdduna muy muy yokk Lalu manisnya na ko am ci wasiya amna na xadis bi wax ne sarax bu ngeen di faatu seen sulusu alal yéen ko ngir yokal len ko seeni jëf teg len ko fu neex kon sa sulusu alal dengan bëgg di ko def foo xam ne say kon ku am alal du bari dagg ca sulus mbaa lu yées sulus dugal ko foo xam ne yiw wuy sax la loolu lu baree bare ci nekk ci ay njëriñ kon loolu mooy mooy mooy li tax wasiya nekk lu am solo day lijjanti yu lëj bare na tey ay njaboot yu dëngoo ndax ci miraas ma lañ lajoo ndax seen wayjur a faatu bàyyi lu leerul kii lebaloon na ko fayu ko ñu ne fay na ko ñu ne fayu ko dara leerul léeg-léeg nit ñëw ne du amee na ma bor ñii ne ko ana luy firnde te ñi séq ñëpp xam ne war naa nekk waaye amul firnde yooyu nag wasiya moo koy leeral wasiya mooy leeral bi ci des it euh, ñu xam ne buñ koy def it daa tegu ci aw yoon dafa am ay ponk yoo xam ne ci la tënku ponk bu ne am charte yu ci aju wasiya ñeenti ponk la am mooy nit ki koy def ak ki muy bëgg ñu jox ko ki ki mu dénkaane nañ ko defal dara ak li mu muy alal alal ji wala bagaas yi ak nag fi ñu ko bind fi ñu ko yaxale ñeenti arkaani yu la am bu dee kii def dénkaan liñ ci sart mooy na doon ab julit na doon ko ràññee gone sax mën naa def wasi waaye na xàmmee na xàmmee lu jaamu yàlla waaye koo xam ne dafa tàggook sagoom ndax yàlla na toog ko wér di wér di xel kooku mënta def wasi nit ku jamono joo xam ne bi muy waxit li mu wax ëntëg sagoom kooku mënta nekk wasi kon na doon koo xam ne mi ngi ànd ak sagoom te alal la moo ko moom it li muy wax moo ko moom waaye nit du def wasi ci lu moomu nit du def wasi ci lu mu moomu ak nak ki ngay denkaane nañ ma ko joxal nangam koku it am na ba ci ndek moy na doon ko xamne ne na liñ koy jox xam nga nit julit day gis ko xam day bind faato bi mu waje faato wo sa ne alalam nañ ko joxal kalbu kalbu bi da andal àndal demé ci rew yi ci dess dañ fa gis lool nga xamne ne dañuy gis ak kalbu bo xamne ne nit ñi bari ñi dund mooy lépp alal ndax waji bari alal lool amul doom dara ak kalbu la andalon ba mu faatoo dafoo siyaat ne nañ ko jox kalbu bi ci lislaam kalbu dañ koy moom waaye du moom moo tax kenn kenn du jël alal di ko def fu mel noonu kon na doon loo xam ne mën naa moom alal ji doonte fi mu ne nii mënagu ko moom nit man naa wax ne dëkk bii bu fi jàkk amee bu yëg ni nañ ci jàkk jàkka jàkka joojee nañ ma ci defal nàngam loolu mën nañ ko bàyyi xel lam dénkaane danañ ko def boobaa wala sax nit ku faatu waaye yow bi ngay dénkaane xam nga ne faatu na nga ne moom laa ko jox dañ cey dégg ne kon njabootam nga ko bëgg a jox su waaye danañ ko nangu nit sax mën naa dénkaane nag ki ko xam du jullit ndax jokk mbokk moom lislaam yemalewu ko ci ak diine yi moo tax nit ki am mbokkam moo xam ne du jullit sañ naa dénkaane ci alal nañ ma ko joxal nàngam Allah sax man nako wo bam ba ci diri ji wala seen dëkkandoo la mana du julit way yene dëkkandoo yene bokku dekk wala ngeen bokku di liggey waaye seq ngeen jamu jo xam dal am nga ci mom lutax nga bëgg koo dimbale loolu it da way nangu budé nak li ñuy dénkaane joxe na doon lo xam manis nako mom. nit la muy dénkaane ne nañ ma ko defal na doon luñ man a moom nit ku amoon alal joo xam ne lislaam day tere ko ko moom boo dénkaane nañ ma ko joxal diwit kenn du ko def masalan tey am mbaam xuux ak jullit sañu ko moom am ñollu jullit sañu ko moom kawar yi ñu jokk ci bopp yi jullit suñu ko moom ku ci amoon ne su ma fu jegee nañ ma ko joxal diw kenn waru ko jox diw ndax loolu sañu su ko moom bu ñuy wax dénkaan dangay ngay dénkaane lu moomu loo xam lislaam nee na lii jullit sañ na ko moom yow nga ne nañ ma ko joxal kon diw waaye lu kenn mënta moom ci lislaam kenn du dénkaane boo ko dafay desu ko desu ko kon loolu mën tax bàyyi xel it léeg-léeg nit xëy na ñàkk xam tax mu dénkaane loo xam ne du noona moom ci boppam daa waroon tàggoog moom yorub kël boobu boo xam ne waru koo yor ne bu ma faatoo nañ ko jox diw dañuy bàyyi kël bu mu dem mu dem ci àll bi ay kenn mu jox diw bi ci des nag ngir wasiya mën a am day am lu ñuy tudde ijaab ak xabul kii dafa wasiya day bind ne man diw doomi diw maa ngi seeral yàlla wax la mu bëgg a wax lépp waaye maa ngi dénkaane ne sama alal nañ ma ci defal nàngam diw sàngam nañ ma ko joxal nàngam diw sàngam amee naa ko nàngam tudd ya mu bëgg a tudd yëpp mu leer si ñëpp bu dee lu muy joxe nag la ngir mu wéy kam ne nañ ma ko joxal nangam day nongu waaye sukaantoo it ñu delloo alal ja miraas amoon na ci saxaaba yi koo xam ne madina la ndëkkoon radiyallahu anhu euh, yonent bi daa ñëw laaj ko ñu ne ko moom de faatu na waaye dénkaane woon na ne su alalam jox na la ko mu ne déedéet delloo naa ko njabootam moo tax dañuy wax ni ngir wasiya mën a wéy faaw ki nga ne nañ ma ko joxal nangu jox waaye su ko delloo duñ wax ne wasiya bi xas na ko joxe kon nañ ko jox keneen déedéet dañ koy delloo ci alal bi njaboot bi ñu miraas kon faaw ki nga xam ne moom lañ dénk ne mu nañ ko joxal nangam nangu faaw mu nangu euh, kon ndénkaan jaam bi su koy def mu ngi jokk ak dundam ci ak faatoom ni ñu amee nag mooy ni ñu ko waxee léegi mën ngaa bind wala nga bu doon jamono léegi ji enregistré say wax sa kase wax ci la nga bëgg a wax lépp wutal koy seere teg ko ci barab wala nga dem ci kër yi nga xam ne dañ fay def lu mel noonu it nga def ko fa fiñ ko gën a taamoo nag nit ki gën ko bàyyi xel mu bu wéradee doomu aadama su xasee wéradee bëgg nañ la muy def tuub dellu ci boroomam waaye daal di gaaw bind wasiya bu fekkee bind ko woon la gënoon sax nag jàmm bi fu mu toll na fekk wasiyaam nekk ci ci moo ci loxo fu mu toll rek buy soppi soppi buy yokk yokk bi wàññi wàññi waaye waxtu ne mu xam daal tey bu faatu dikkoon tey ginnaawam dara du lëj ku mu seqal ku ne bind na ne lii diw laa ko seqal moo tax subaat di ko dañoo ma te it ñëpp gis nañ ni faatu yi nit di waxtaan rek jek jek faatu nit jug aw yoon di dem barab ak gut lu ne xew bu wasay amut lej lej moy am lay la ñu miraas alal joo xam halal jambur la kiñ te koy miraasal ko way dañ ko fet ci bagasam te gisuñu benn film lu war ne te nak reer du ngant sa buñu ñu halal jambur ak àq jooju bu dañ ko dal moo lu mat di lijjanti lu mat bàyyi xel bu ko defee nag fas xeet yi am bi ci njëkk mooy am na ndénkaan loo xam ne moom daa war daa war nit wër te faatu te defu ko mooy àq yi nga xam ne àq suñ borooma wala àq jaami yàlla yi la jaam bi mënoon koo def te defu ko ba faatu dikkal ko kooku daa war a dénkaane ñu defal ko nga ci asaka waroon joxewu ko ba faatu dikk na bind ne man kat waroon na maa génne asaka kon sama alal bala ñu ko miraas nañ génne asaka wala yi ma waxoon léegi xeeti kafaara yooyu wala lum ne séeroon war koo def te dafa gugg wala àq yoo xam ne àqi jaam yàlla yi la ay ndénkaan ay bor ay jëflante yoo xam ne yaa ngi ko doon jëflante ay nit bu ci nekk alal jàmbur joo jëloon léeg-léeg nit jël alal jàmbur dem mu yàgg tuub dikkal ko mu xam ne li jaaduwul mu gaaw bind ne ah lii de wax dëgg yàlla neexul bu neexul maa ko siife woon ci diw kon nañ ma ko delloo diw jéggulul moom nga bind ne ci diw la ko siife ndax léeg-léeg ñu miraas génne bagage diw ne lii maa ko moomoon diw sàngam da koo ñëwoon sama kër jël ko yëguma ko loolu nag siif la tudd lu mel noonu day day mat a xel bu ko defé ñu bind ko ci ndénkaan yi ba bo fi joggé lepp mëna leer ndax borom bu ma wax né inna allaha ya'murukum an tuwaddu lamanati ila ahliha ci amana di la def ay ndénkaan ay bor yo amee nit wax bu mu leer suñ ko ta fay jabo gi xam ndax nit bal nga ko mirage dañoo wara génn bu fekkonté né bor yi da jéxal alal di ay ndonom duñ doono dara moy kon ku faatu bayiwut alal la ay léeg-léeg ñu miiras nit séddal alalam ndekete mu ngi bàyyi bor yu bari ñu bàyyi bor yi lu wër ñu naan danañ ko lijjanti danañ ko nàngam loolu àq yi la te yow ibnu islam waxoon na ne nit ki bu faatoo dañ koy tayale ci borom doom jàmm mukk te fayut bor yi a bàyyi xel la mat di bàyyi xel la ci njëlbéenu islam nañ andi néew bala koo jullee dana laaj ndax bàyyi na bor bu néewaaw mu ne ndax bàyyi na lu mu ko mën a fayee bu néewaaw mu jullee bu ne bàyyi na bor ñu ne waaw bàyyi na lu mën a fay ñu ne déedéet mu ne jullee leen seen waaye man du ma jullee borom bor ci mujj gi nag bi lislaam amee doole la wax ne ku bàyyi bor maa koy fay ne ku faatu bàyyi bor ñun di may islaam fayal ko bor loolu it mat bàyyi xel ñu xam ne faatu yóbbaale bor ayut ndax ci dund gi la bokk waaye nag nañ ko leeral nañ xam ne ameel na nit bor ñu mën koo lijjanti bala ñoo muy raas loolu nag boo ko defee ci ndénkaane ci lay gën a leer kon mbooleem yi nga xam ne laa war sa diggante ak nit ñi nga séqoon ko ñoom bind ko fu leer nañ wutal ko ay seere ngir ñu mën koo lijjanti sa ginnaaw lijjanti bu yomb waa dara du ci lënt boobaa dara du ñaareel ba dana nekk lu ñu sopp moom wasiya bu dee ci ay jaamu yàlla la jëm nit ki tabax ay jàkka wala dundal jàkka ji wala ay dongo yu jàng ne nañ ma leen joxal nàngam yooyu yëpp de dugg ci sadaqa jaare bi nga xam ne islam wax na ne bu nit faatoo yi néew yi des ci alalam ci la bokk yi des ci aw yiwam bu ko defee nag ndénkaan li nga xam ne dañ koo sob ñaari sart lañ ciy sart bala ñoo sob ndénkaan mooy nit ki na am alal yu bari ci dénkaane alal na fekk mu bàyyi alal yu bari waaye su dee alal ji bariwut lool bàyyee ko sa njaboot moo gën nga def dénkaan ñaareel ba booy dénkaane it bu mu doon euh, na doon mbokk mu la jege waaye wuru doon na doon mbokk la jege waaye wuru la doon ndax ñi doon moom kenn du def wose yi jëme ci ñoom yonent bi moo waxoon ne ak yépp leer na kon nag la wose yetali waaris kon ndénkaan dana nekk lu sob bu ñaar yu dajee waa ji bari na alal nga xam ne bu génnee li muy dénkaan it dana des lu bari lu njaboot gi mën a suturloo waaye it ñim ne nañ ma leen jox bokkuñ ci ñu koy doon waaye it ay mbokk lañ mën naa doon jàmbur it boo xam ne ak dëkkandoo boole na leen wala bokk di liggéey ñooñu yëpp baax na ci ñoom waaye nag fi mu gënee mooy ñu la gën a jege ndax ulul arxami baaduhumu awlee bi baadu kon loolu it bokkoon na ci li ñu bàyyi xel te bu ñu def wasiya am say bokk say jege jegeñaale yu néew doole léeg-léeg ñun fii niñ baaxoo dunde nga xam ne léeg-léeg say jarbaat say sët yoo xam ne seen yaay nga jur ñooy dëkk yow ànd ak yow bu dégg bëccëg te bokkuñ ci ñu la war doon ndax min zawil arham ñu mel na nu bu amee alal ju bari wasiya ne nañ ma leen joxal nàngam lu am solo lay doon dana defar lu bari seen diggante dana taxit ñoom duñ la fàtte mukk waaye na gis ko mel noonu nekk ak yow bu dégg bëccëg faatu ñu seppi seen loxo ci alal ja séddale ko te amuñ ci dara lu mel noonu li sab di bañ moo tax bëgg na ñu def wasi ci jege ñaale yu mel noonu bu dee nag nit koo xam ne nekkul ku ñàkk nga wasee nañ ma ko joxoon nangam xëy na ngir rafetal seen diggante loolu dagan la bu dee jàmbur noonu wala sab xarit boo xam ne seqoon ngeen àdduna loolu dagan la naka noonu ndénkaan loo xam ne leer na la ne bind nañ ko loolu bu la neexoon doo def wasiya ndax leer na ba nag waaye nag du tee sañ ngaa def wasiya ngir mu gën a leer nga xam ne buñ gisee fa koy firndeel du tee ñoo xam ne yow kat bindoon nga ne lii di dëgg la ndax bind na ne ameel naa diw nàngam wala dénk naa diw nàngam yoon ngeen gis nit faatu ñu ne am na kum dénkoon alal nañ ko laaj ñu dem mu ne la ma dénkoon jeex na te nit ñi xam ne ni jeexul waaye ginnaaw bind ko fenn ñoom binduñ waxuñ boolewut woon kenn bu kooko ragalul yàlla day reesal alal ji ci àdduna bari na tey ñu faatu alal ju bari mbokkoon seen alal rawatina ak jur kenn miraas su ko ndax jotuñ yooyu dañ ko war a bind leeral léeg-léeg nit ne ci barab fekk barab ba muumut lépp daa am fa moom man naam da ko bokkoon ak magam wala mbokkoon kook ay yeneen bokkam ñu dem faatu bàyyi ko fa bàyyi gone yu ndaw mu ne cell wuuf njaboot bi dem ba jëmmi jamono ay njabootam gëm na ñoom barab bu bindul wasee wax ne kër gi kat ñii la demee woon diwoo ko moomam ba mu fi jógee ma nekk fi nekk fekk diw kon boo fi jógee nañ def lii nañ leeral lii loolu dana tax lëj du am ay léeg ñu xëccee loo xam ne am lëj mu yàgg moo ko waral te bu fekkonte ne ñëpp ña jiitu ñëpp war a bind wasiya bindoon nañu wasiya loolu du ca am moo tax mu doon lu am solo euh, lu mat a bàyyi xel waaye nag dana nekk lu ñu sibit nag moo tax daanaka attey lislaam yi ñu xam yëpp dana ci gaar dana nekk farata dana nekk lu ñu sopp waaye dana nekk lu ñu sib ginnaaw bu nekkee lu dagan gis na ko sib ci dénkaane loo xam ne lu ñu sib la wala yow nga yor ay gone yu néew doole amuñ dara ba nag ku ngeen sama alal nañ mu ci defal nàngam nga xam ne ko day mel ne eh, ñi njëkk a loru ci seen dénkaane moom seen njaboot dénkaan lu mel noonu dañ koy sib boo ca jubluwul lor leen boo ca jubloo lor leen moom du daganat bu fekkee ne it li nga wax ne nañ ma ko defal su benn sànk alal la alxuraan yi na ñu ko dugal foo xam ne bu ëllëgee sobale ba ak yu bari yu mel noonu ci nekk kon bari na léeg-léeg ñu dénkaane ne sama alal nañ ma ko defal barab sàngam wala nañ ci jënd nangam loo xam ne sànn koy tere yooyu ndenkaan deesu ko weer ay xel yu mel noonu kon faaw na doon loo xam ne kenn terewu ko te amal na njëriñ ñu koy def te lor nekku ca ñu door a sa sañe dénkaane lu mel noonu waaye dana doon nag lu araam léeg-léeg dénkaan àgg ci xaraam mooy saa bu làmboolu xaraam xam nañ ne bu njëkkoon am na ñoo xam ne dañuy wax ne bu ma faatoo nañ jël ci sama alal wo ñi yuuxu ku faatu ñu fay leen ñu jooy ma bañ xamne ne tekk woon dara ci dekk te jooy yuuxu ku faatu ci anam gu mel non dafa haram ci l'islam wala mu ne so faato sama alal ji nañ ci jënd am ñoll jox ko nangam yóbbu barab sangam nañ ci jënd ay mbaam ko def ko nangam den kan dafa haram ndax yoy jëfandikoo ko dafa haram ci l'islam kon ku ko dénkaane dañ ko tade wala mu ne su ma sama alal ji nañ jël nangam ci armée la ñuy tabaxal ma ci tabax bu mel nangam ndax nii laa toll armée yi ñëpp bokk kenn du ci tabax tabax boo xam ne it puukare woo tax ci lislaam it dëgënu fi ñu mayee tabax ci armeel mooy nit ki fi muy tabax mooy suuf su moom wal tey tabax ko jubluwuñ ca puukare waaye bu dee armeel yi nga xam ñëpp ko bokk nit ki fañ ko fi suuf rek la fa am saa boo tabaxee jël nga ak keneen yu mel noonu ku ko dénkaane woon it dénkaan loolu dee su ko wéyal yu mel noonu bokk na ci mat bàyyi xel baax a baax naka noonu it jël alalam di ko dugal foo xam ne daganul sama barab bi nañ ko luyee carte ñii carte wala nañ ko luyee ñii nangam maanaam lépp loo xam ne dañ lu bon la lislaam da koy tere boo dénkaanee ne nañ ko defal ci alal ji kenn warula ko defal kon daal na doon dagan luñ maye seen ko caa def saa boo waxee ne it nañ ma joxal diw te diw moo bokk ñi lay doon dénkaal du sukuwe loo ko yërëm yërëm yàlla ëpp yërmaane ci moom te wax na li muy doon loolu nag dañu wax ne jamono yi ñu jamono yi ndénkaan di wéy la ñuy xool nit man na ne diw nañ ma ko joxal ndàngam te jamono yi mu koy jox nekkoon na waaris waaye ginnaaw bi nekkatu ko bu baax dañuy wéyal denkaan masala nit mën naa am rak magam wala rakam amagul doom daan ne bu ma faatoo sama nàngam nañ ko jox sama mag ji wala sama rakk ji jamono yooyu mu wax loola bu faatoo woon jamono yooyu kenn du ko wéyal ndax waaris la waaye ñu dox tuuti yàlla dogal mu am doom doomu xase ya mbokk dootul doon kon waaye mbokkam moomu lam ne woon nañ ko defal bu faatoo dañ ko koy jox moo tax dañuy wax ne wasiya li waaris jamono yi ndénkaan liy wéy la ñuy moo xam ba mu koy dénkaane nekkoon na waaris waaye léegi nekkatu ko danañ ko jox bu fekkoon ba mu koy dénkaane nekkutoon waaris waaye léegi nekk ko duñ ko jox nit ku gis ak soxna yërëm ko bu faatoo nañ ko jox nangam ci sama alal yàlla dogal ginnaaw bi mu takku soxnaam mu faatu bokk ci ay soxnaam dénkaan loolu kenn du ko wéyal ndax wasiyee li waaris léegi donte jamono yi mu koy dénkaane nekkutoon waaris moo tax loolu teewaay bi lañ ciy yooyu yep na mën a bàyyi xel ndax léeg nit yi bëgg a ñaan ba tax nga neñ nañ ma ko defal nangam loolu limi tekki moy yalla mi mom mom jaam ñepp wax ne bo fa tok sa alal diw ak diw la ko séddale day mel da la jubu jubuwul nga bëgg caa tam kenn wala ñenn di leen jox lu bokku ak leen yalla jox moo tax ku ko def dañ kenn ko wël dañ wax sax ne bu ko jabo di wëyelo and ci ñepp ñom ñola ko may waye du wosé ko war a doon moom kenn du ko wasiyam wante léeg-léeg nit ñi sonn ci loolu nag am sa njaboot bu jigéen wala bu góor yërëm leen soo son photo may naa leen nangam foo ko mën a bind seere yoo ko mën a wutal boo faatoo dañ koy dañ koy sànni ndax lislaam ko tere moo tax nag yooyu it mat naa bàyyi xel baax a baax bëgg lu baax la te it mën naa lor nag ndax léeg-léeg nga def ko ci say njaboot am te ñu gis ne kon yow jubluwoo leen yéene dañ amoon ceew day wàññeeku ndax dañuy jàpp na yow kat ndeke am nag njaboot bi ñoo gënoon a fonk ba ñom ngay gëna yéene sa alal ci ñoom sa bo xamé nak wasiya bi bëgg lor bëgg lor koy doon mo taxé dañ ko annulé dañ ko yaq masalan ko xam dal ak njabotam la méré moo tax la gëna baax ci alalam mu daal di wax na nañ mako ma ko joxal diw ci ci surus su tollu bi mo waxoon waye xam nañ ni bëgg lor ak njabotam la ci jublu kenn ko wéy xeyna na mere na len ngir ay yef waye nak na xamne ne eh, loolu yalla ko santane Ibrahima salam non na al idraru fil wasiyati min al kabair ku daf wasiya ngir bëgg lor ñen lolu ci bàkkaar yi magi la bokk motax tax wasiya kenn ku jëm lor kenn ya dal xam nga ne baye nga alal sa bot man nañ ca jariñu way amna ñeneen no yeeram ñoo sekkalu aduna nga jox len luñu mëna lolu lañ ci donte nak wasiyé ji ñu wax ni baxna nit ki def ko bala faatu waaye nak li gën moy lu bax loy def nga def ko ba ngay dund waaye bul wax ne son faatoo mas nañu laaj yonent bi ne ko saraxé ban mo ci gën mu ne nga saraxé jamono jo xamne ya ngi wër soxla alal nga xam soxla nga waaye bu bàyyi ba faatu aksi nga nan diw nañ ko jox diw nangam nañ ko nañ jox diw nangam jox diw nangam day mel na ngaa dem ba amuto soxla ci alal ji nga doora bëgg a ñu bëgg saraxe ci tambali ba ba ngay soxla alal ji yaakar dundu xamne dang da nga ko aajawoo nga jël fi joxe ngir yàlla lool moy li gën ay teewul nak li ñu waxe it baax na ndax lay léeg nit dabaatal ci aw yiwu ko naro naro lay ndax man naa ndax li tax ñu bëgg nga def yi nga wax def léeg-léeg sax ñu dénkaane ñem dénkaane sàggan la wax defuñ ko yéen ni dénkaane mu joxal diw ñu mokk ñu lëjoo dugg fenn waxtaani seen biir ne waa ji daal li mu wax nangam nangam li mu wax seet nañ ko seen waaye daal mënta nekk moo tax yow li ngay joxe joxe ko bi ngay dund moo gën waaye du tee nag sañ ngaa def dénkaan ci dañ ko waxee Ibrahima salaam waxoon na ko ne képp ku lu muy denkaane bu mu toog ñaari guddi te dénkaane ndax xam nañ ne heure bu ne faatu mën naa ñëw lay xew di ca xew kon yooyu yëpp nañ ko bàyyi xel ci dénkaan xam ne eh, su ko jàmm bi def yi ca war a ak yëpp na ko leeral mooy tax su noppee yéwénal ginnaawam ñaari xeet yi ñu wax yëpp ci nekk bu war surtout boobu moo ci gën a mat a bàyyi xel ci bu war nit ki ak yim ak ko amel mu faatu mukk tu bindul batale wutal koy seere bu ko defé nak li ci tom moy tom bu ci topp moy li yak ndengan ndengan dana am ba war wala waliyaasu billahi nit bu tuddu won genn ci l'islam lepp lu mu bindon ci ay ak wala kam denkané nañ ko jox bu day ndax nit bu xasee génn ci diine yu baaxam yépp yàqu na ca wasaayaa ci yu baax yi la ko naka noonu saa boo defee wasiyee ci loo xam ne nekkut ak jaamu yàlla du baax dañ ko yàq ci salsa moo xam da nga dénkaane lu xaraam wala nga dénkaane lu ñu xam nga léeg-léeg nit ne moom bu faatoo nañ rey ay nag yu mag dañ jël nag yi gën a seer rey ko woo waa dëkk bépp boroom alale yépp ñëw teewe sew dëj loolu xawaare la lii cosaan ci dëj bu nit mosaana faatu ay dëkkandoo yi ñooy waaye ci biir bidaa yi sosu la bokk nit faatu ba noppi njaboot gi jël seet alal toggaat aw jam di ko jox nit li ci gën a doy waar mooy léeg-léeg alal ji ñuy toggee ñam wi alal alalu néew be woon te faatu na génn na loxoom te duggagut ci loxoy ñu ko moom rawatina bu fekkee ne ay gone yu ndaw yu baalee xagut dañ cee nekk ñooñu ay jirim lañ ku lekk seen alal sawara nga lekk te léegi-léegi muy am donc yooyu yëpp di ma bàyyi xel moo waral ku dénkaane dénkaane yu mel noonu it dee su ko wéyal ndax du ak jaamu yàlla wala ku dénkaane woon ne diw nañ ko jox nangam man kat mu di ma jullil ndax am ay julli yo xamni julli mu ko na ma diw jullil julli nanguwut wutal da bok ci jaamu yalla nga xamni ne kenn du ci wutu kenn motax yu mel noonu kenn du ko deflu woor it kenn du ko deflu woral ma dis ko daf disu julli disu woor moo tax yu mel non ku dénkaane nañ ma jox diw nangam ngir mu defal ma nangam kenn du ko daf man nga dénkaane ñu saraxel la nak man nga dénkaane ñu joxe la ci jakka ji man nga dénkaane fu ñu def lu baax fu ne ñu joxe ñu joxe la ci alal waaye yi nga xam ne nag moom euh, lislaam nangu ko te wuutu kenn dee su ci dénkaane bu fekkee ne it say bor daa ëpp sa alal waroo dénkaane boo dénkaane ndax amu alal yow luy dénkaane ki am ki ñu fay ay boram alal ci des loo xam ne njabootam mën nañ cee dund waaye des na loo xam ne it mën na cee def lu baax kokk lañ bëgg mu dénkaane saa boo dénkaane ci koo xam ne waaris la dañ koy yàq Sabu bo denkané lu upp sulus alal sulus bi la ca doon lepp lepp dañ koy dindi ana jambi bi alal la mom ginnaaw buñ faato mom lañ wax lu mu bëgg dañ koy def kon sabun buñ xolé alal ji ginnaaw buñ ñu bor yek ak ci yépp yeneen yi dañuy xol lim am ci alal ñaata la bu dé ñett jooni la ben jooni bi moko mom lepp lu mu ne nañ ko ko ci dafal nañ ko ko ci wax yi ñu wax ni waye bu xasse ëpp ñett jinn yi nak lam ëpp lañ koy tej bu ñett jinn junni juroomi témé la wax juroomi témé dañ koy dindi jox ko nonoy ya ndax loolu sañu ko kon déssul dénkaane lu ëpp sulus sulus sax borom xofé dañ wax ne ki dénkaane mu bañ ko mat mo gën ndax da waxon ne ginaaw sulus kat na nga dénkaane sulus té sulus sax lu bari la dañ ca yégée bu ko yéesee yi day mel mo gënal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sallam moo ñu wax ne bañ ko mat mo gën bi ci des nit mën naa dénkaane ba mu neex ko mu jekk jekk ne la ma waxoon génn ci man na bind wasiyaam nañ mu joxal diw dara nangam waaye bi yàgg mu jekk ne bayyi na ko bindaat ne bayyi na ko su boobaa dañ koy dindi motax tax dénkaan solo ndax dara faatu ci fek faatu ko dara faatu ci kon nit ki man nako def leral ci lim mu bëgg a su dee ba jëm jëm lu mu bëgg sopp ko na sopp lu mu bëgg a sot na koo sot lu mu ci bëgg a yokk mën na ko caa loolu lu mata a bàyyi xel la mbokk yi bu ko defee nag li ñuy mujjee wax ne ku bëgg bind ya nag amul benn tëggin wul wuñ ne moom la ñëpp war a def waaye li am solo mooy ko yow xamle sa bopp yow muy dénkaane kan nga man diw doomi diw seeral ne ab nga woon maay seeral ne ken du yalla ku dul mom bu yalla ya- ken du bur dul Muhammad ndawul yalla ma ngi denk sama njabot la ñu jitu ñu daan denk seen njabot wax yi nga bëgg wax yépp Ibrahim lam denkon ay domam ak yaqub inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun dénk leen ragal yàlla dénk leen jokk ak mbokk dénk leen rafetal jëme ci nit ñi teg ca nag la nga bëgg a wax diw sàngam amel naa ko nàngam mu faatoo diw sàngam dénkoon na ma nàngam lu mu la jege-jege it bindal léeg ñu faatu soxna yi ak amalante diggante soxna ak borom ko faatu ay bor seen diggante ñenn ñu rus koo laaj wala ñu laaj mu ne ñu rus a wax ne da koy mu ne bàlle nag bu fekkee fuñ ko bind nag nañ ko fay amee naa ko nañ ko jox nangam am na ci yoo xam ne it man na bàyyi xel ndax léeg-léeg nit ci ni ñuy àndee leblante la ceeb dañ ko ci mën a ñàkk ñaar léeg-léeg ak kenn sax ba muy takk soxna kenn nga mënatoon da koo leboon ñu dund lu yàgg mu faatu waaye matut war naa bind ne diw sàngam ameeloon naa ko kenn dugaloon naa ci nangam desoon nangam nañ ko mottali àq yooyu yëpp mu leeral ko. ñi nga xam ne ñoo la amee lit nga wax leen diw sàngam ameel na ma nàngam barab sàngam maa ko moom wala barab sàngam dañ ma ko dénkoon waaye moom mu ko barab sàngam maag diw ñoo ko bokk yépp nga bind ko boo noppee wut li gën sax mooy nag nga binduloo ko commande ko xam mu noppee nga signé ca wut ñaari seere ñu signé ca nga denc ci aw këyit ñoom ñu denc yalla dogalee ak ko amin nga ko loy looy soppiku fayat bari na fi ay nit ñu am yité ñu baax ñoo xamné bind nañ seen wa seen ëpp ñaar fi at dund léeg lañ ñew ñëw ci dara léeg lañ ñoo sopp ci dara dund na ñaar fi at nangam ci wasé yi doora a kon kon jotewut faat dara kenn japp ne ku bind wasé ya da ngay gaan nga faat faatu wuñ dara ndigalul yalla lu ñuy def la bokk na ci ay njëriñam loolu ndigalu yàlla saa bu ko defee def nga lu yàlla digal leeral nga sa digganteek sa moromi jaam leeral nga sa digganteeg si yàlla sa borom ci àq yoo amee yoo xam ne boo ko fayit boo léegi da nga ko fay bi ci des it dimbale nga sa njaboot ba yombalal seen ginnaaw buñ lay miraas miraas mën a jàpp na la joo doom xuloo doom kenn du mere kenn ndax yi war a leer yëpp leer na miraas yàgg naa am la joo am ndax ñàkk leer yi war a leer ay doxe ci ñu fay nit bor ñenn njàpp waruñ ko woon a fay ndax leerul ba xuloo am te ñu bañante ci dox yu tàggu te lu jiitoo ñu ngi ànd bu fekkoon nag leer na loolu du am kon loolu su ko bindee bind ca mujj nag ñaanal boppam yërmaane yàlla ak njëggalam euh, bind ci tur yi ña ko seere loolu wasiya charan yàlla boo xam ne jaam bu nekk ci wax wu ne war na koy def bul xeeb sama bukk ci ne man man naa ma sama ginnaaw bëriwul ay jafe-jafe yaa ngi jëflante ki nit yaa ngi dend ak borom bitig leblante ak ñoom foo toll waxal ci fi nga toll saa yu faatu dikkee liggéenti ko yomb di ci des it na doon këyit woo xam ne fa mu nekk day yomb xam benn nga jox ko ay nit wala nga jox ko say njaboot bi ci des it bokk na ci yi mën a dénkaane te baax loole nit ki ñi mu wóolu ci ginnaawam mu dénkaane batal leen boo ma faatoo na ma diw sang wax ko sa njaboot wax ko ko moom ba sàngam laa bëgg ñu denc ma fa na ma diw sàngam jullee diw ak diw sàngam nañ ko ko yëgal yooyu jullit su sañ na ko def ndax léegi am yaakaar ci ay nit ñoo xam ne seq ngeen loo xam ne boo soñoon boo leen njëkkee faatu ñu teew sa ginnaaw yooyu yëpp bokk na ci jaam mën a def buy dénkaane ngir ginnaawam neexe lijjanti waaye lenn lu naqari bañ ca am ndax buñ ko defut nit dana faat léeg-léeg bàyyee ko ñoo xam ne bu ma noon dekk dana ñi buñ ma laal ndax mën naa am ña ko jege ñépp waroon ko taxawu ñeme ko wala am na yu tax léegi nag moom bu dénkaane woon wax diw diw moom a nangul ko ko bu faatoo jafe-jafe do am ndax moom mi ko taamu ba def ko xam na la tax mu def la ko nit it faatu ne nañ ma suul barab sàngam denkaane ko ñu suul ko feneen it tooñ la yu mel noonu yëpp faat ñu suul ko fo xam ñepp ñëpp xam nañu ne bëggutoon koo fi suul waxna ko ay nit xëy ñoo bu ko doole sul ko fenen loolu it man na baye xel ndax jalgate ci ne gaan nañu do tarik islam motax da jamm da lepp lu mu soxla ginaaw lepp luy aajam ginaaw sañ bind wasi bind ko ci bul xeeb dara bul xeeb dara boo bëggee sax bo ragalay sax de sa ginaaw amna ci si ñoo xam dañu dañ daf ay dejju xumbu te loolu xam nga ne lislaam da koy tare wala dañ daje di la yuuxaloo nga bind ne bu ma kenn jooy bu kenn yëkkati kàddu su ma faatoo ku ko def baaluma la xam leen yàllaa mu fi indi moom fi jëlee. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa yi ñu waxtu yi nga xam ne